ñoo ngi ñaawlu doxalin bi nga xam ni moom la président Macky Sall di doxalee jëmee ko ci suñu président Ousmane Sonko ñuy ñaawlu tamit décret bi nga xam ni jël na ko ngir dàq ko ci liggéeyam muy dàq goo xam ni teguwul ci yoon waaye politique rek moo ko lal ndax Ousmane Sonko deful dara lu dul jox ay xibaar mbokki sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo moom xibaar yooyu ndax constitution moo garantir sénégalais bi droit à l'information te xibaar yi mu joxe. bépp sénégalais bu dem fa mu ko jëlee di nga ko fa mën a fekk daal di koy xam ko moom kon deful dara lu dul jël xibaar yooyu daal di koy jox ñi ko moom ñuy wax le président Macky Sall ne ko tamit Sénégal bi ñu ko joxoon Sénégal la boo xam ne ñi fi newoon dañoo xeexoon ba am ay acquis démocratique ba ñu respecté seeni droit te sénégalais yooyu tey mënuñu ñëw ba fii di accepter loolu ñu xeex ba am ko ñu leen koy xañ ñun militant Pastef yi nekk Thiès tamit ñoo ngi feddali suñu engagement ak su eh, ci suñu ginnaaw président Ousmane Sonko fas yéene ànd ak moom xeex ngir alalu réew mi ni ñu koy yoree ñu teg ko ci yoon.